tey euh, état yëpp nangul nañ ay président tey tey ay président ñooy dugg nànk Sénégal dem Medina Baye ay ministre ñooy dugg nànk jël seen jet jet privé dem Medina Baye ban relation la amoon ak ñoom est-ce que ci maarifa fara woon mais si stratégie la woon amuñu lu doon def duñu toog déglu ko wax ak ñoom ak moom bi ñu nee dañuy taxawal tam maqaama Ibrahima Il tam politique la. politique parce que mon engagement. ak détermination gëm li yow yaay xam-xam. politique Cheikh Ibrahim. Mm-hmm. Mm-hmm. donc nga gis ni Cheikh Ibrahim lepp mu ne gis ma bay ko bay ko. waaw c'est ça euh, euh, comment dire euh, mom taxawal toolu baay. waaw toolu baay ndeysaan. yonent sallalahu alayhi wa c'était un un grand stratège ba ci politique kon Maolana Cheikh Ibrahim foog mu nek ko xam ni c'est un grand politicien. waaye sëriñ bi dama bëgg ñu dugg ci benn phase bo xamante daf ma ñor trop. Hmm. muy faydu économie. Hmm. parce que man dama gis ni bon ñun faydu on a toutes les solutions. Hmm. pour mën a doxal économie. waaye ñun dañ ci am retard. yàlla may nañu lépp. Lep, lep, lep, lep. Imaginez, lek, imaginez, lek. 300 millions, vous avez quelqu'un qui connaît que 1 000 francs. Imaginez correct. Ça, c'est bien. C'est pourtant. C'est pourtant. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di siyaare bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di seetaan chaîne bi nga xam ne mooy Barham Yéene TV ñu ngi leen di béggee bu baax di leen nuyu di leen tatagal di jël nuyoo bi nag di dem ba Medina Maolana Cheikh Ibrahim teg ko ci loxo xalifa bi nga xamante ne moo fi teewal njaboot gi yëpp muy kan muy Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass mi nga xamante ne boobu ba léegi mi ngi ci ay mission yoo xam mission yu am solo la ci sous région bi di fa dem di fa samp li nga xamante ne dañuy Medina dem grande mosquée Medina Mawlana Cheikh Ibrahim jox loxo ki nga xamante ne imam bi muy kan muy Cheikh Tidiane Aliou Cissé mi nga xamante ne ko ci turu imam Cheikh moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko defal katan defal ko defar ko wérle ba mission bi nga xamante ne mi ngi ci yàlla na ko yàlla may mu oyef ci moom waaye dañuy jàll ci rakkam jooju nga xam ne moo sës ci moom rëkk te du ko rekk muy kan muy Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé mi nga xamante ne moo yor kaddu Medina Mawlana Cheikh Ibrahim waaye moo yor kaddu njaboot gi yëpp waaye moo yor kaddu mboolem taalibe yi waaye buñ jugee ci moom nag dañuy ñëw Ndakaar Dakar nag buñ fi yegsee ñëpp xam nañ fan lañ war a jubali muy kan muy Cheikh Mouhamadul Lamine. Ibrahima Niass ñëpp xam ko ci babalamin Lamine moom it nga xam ne moo fi teewal njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim waaye moo fi teewal li nga xam ne mooy Medina Baye moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér may ko kattan ba nga xam ne lii mu sumb yàlla oyofal ko ci moom ba muy mën ko yeggale ci jàmm waaye tey dañu am mbégte ak contentement ñëw ci émission bi nga xamante ne mooy entretien exclusif tey ñu war fi dalal ki nga xamante ne man man maa ne ko tuddee le visionnaire de la fayda ci wàllum économie ndax nit la koo xamante ne vision am ci mbirum faydu ci mbirum économie dafa jar topp dafa jar waxtaanee dafa jar xool ndax daf ñu joxoñ loo xamante ne lépp boo ko xoolee rek njariñ lay nekk ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci faydu mu tuddee ko Baye networking mu nekk benn mouvement bu am solo ay mbokk talibé neuf fa di fa yëngatu di fa am fa ben solidarité économique bu fa nek bu doy war motax tay am am am contentement bu reuy reuy reuy dalal ki nga xamné suma soppé la suma mbokk talibé la suma xarit la waye suma do la muy kan muy Cheikh wad Cheikh bi mag lay ziaru bu di la ñaanal yalla di la wax na dalal sa kër fi mom sa kër la allah Barham yeen TV téléspectateurs yépp ñi ngi am mbékté di la suivre di bëgg rek ñu waxtaan incha allah rabbi di la wax ne lan ngay nuyoo. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwata illa billahi alali azim yaa imata cheikhi uxdir lana bi hada almaxdari wal taxtafi bi nazratin taati lana bi zafari wa baad ñi ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di yëkkati suñuy nuyoo yu njëkk di ko jagleel sunuy kilifa yi nga xam ni dañuy topp sa sa introduction rek def ni yow nuyu ki nga xam ni sunu référence la ñun ñëpp moom la ñuy tiitaroo muy xalifatul am cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass nga xam ni moom moo nekk xalif général de la fayda tijaniya suñ ko nuyoo dañuy dem nuyu tam ki nga xam ni moom moo ko toogal fii ci Dakar muy wakiilu daad ki nga xam ni moom it euh, weeram ñëw na teeru na te nga xam moom moom rek la fonk moom rek la bëgg donc muy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima ñas di nuyu ki nga xam ni moom mooy euh, imaam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé di ko ñaanal gudd fan ak wér nuyu tamit porte parole Euh, de la fayda tijaniya Cheikh Mouhamadou Mahi Aliou Cissé nga xam moom tamit mi ngi def liggéey bu am solo solo ci ci faydu bi suñ ko nuyoo tamit dinañ nuyu ki nga xam ni moo dajale mboot taalibe Baay yëpp ci buntu jamiatu ansaaru diin muy Cheikh Mouhamadul Munhamina Ibrahima Niass suñ leen nuyoo tamit fook ñu nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy généraux yi ñi nga xam ni tey su liggéey bi suñ ko lancé rek ñoom ñoo nekk ci waar bi si terrain bi di defar jaamu yàlla yi di liggéey liggéey bu am solo mooy sunu muqaddam yi te dama koy tàmbalee si sunu bunt muy Cheikh euh, Bachir Ndaw nga xam ni euh, moom la ñu yàlla booleel gannaaw bi ñu euh, Baye Tuuti Cheikh Cheikh Tuuti Ñas Euh, bu bu mu doon wax ni baat baay tuuti bu ndaw la bu ndaw la waaye moom bàyyi tuuti bu mag la. Euh, moo ñu booleek moom te bi mu ñu booleeg moom ba léegi wax dëgg yàlla euh, amuñu ci benn réccu di kontaan di ñëwaat beneen yoon. ci fii suñu kër. muy Barhamiennes TV. te dañuy bunt bi nag dañuy nuyu le directeur général. waaw mu nekk ndaw bu am bu am Pastef. ndaw bu bëgg Maolana Cheikh Ibrahim mbaw ndaw bu bëgg liggéeyal Maolana Cheikh Ibrahim waaw nag waaye nag suy liggéeyee nag di ba liggéey bi neex dafa fekk ni dafa am ay collaborateur yu yu yu am solo yu bëgg liggéey bi xam ni fii mooy bunt bi tamit mooy liggéeyal Maolana Cheikh Ibrahim donc yow su la nuyoo rek euh, bëgg bàyyi nga xam ni say photo suñu tegee photo Maolana Cheikh Ibrahim rek dañuy naan waa ndeysaan da danga ko bëgg bëgg bëgg ba do ko voilà donc moo tax ñu ngi lay nuyu suñu sunu xameel démb la ca HLM nga nekk tam référence su HLM donc suñ la nuyoo tam dañuy nuyu sa sa buntu tamit nga xam ñoo bokk ñun ñëpp foofu noonu muy muy Cheikh Cheikh Tidiane euh, si nga xam ni euh, moom tamit ñu ngi koy nuyu di ña di nuyu mbokku taalibe yëpp

présentation bi cof na ci tuuti waaye man dama koy sawara a tout le temps comme ni ma koy faral di waxee parce que dafa am loo xam ne buñ duggee ci biir waxtaan bi di ngeen xam ni kii ma leen ni li ma leen di junj moom ci loolu def ci exceller waaye tey dama bëgg entretien exclusif bi nekk benn entretien bu ala dawme moo tax ci ñetti point rek incha allah rabi laa koy teg muy lan muy relation faydu ak économie lan la faydu war a mën a indil économie waaye lan la faydu war a mën a indil politique waaye lan la faydu war a mën a indil social. tey jii loolu rek laa bëgg ñu waxtaanee ko te xam naa ni ki ma jàkkaarloo mate na ko te incha allah bu ñu ci duggee di ngeen xam ni mate na ko kon sëriñ bi tey lancé naa point yi waaye dafa am buntu boo xam ne dama bëgg ñu njëkkee ci muy faydu ak politique ah faydu bëgg naa daal nga yaatal ñu ci tuuti. njariñu faydu ci politique. alhamdulilah euh, suñu soo ñu posé question boobu euh, dañuy am suñu repère rek dañuy delluwaat si maanaam Cheikh Ibrahima Niass. waaw ak i politique. politique moom mooy moom mooy lan mooy li nga xam ni amaana njariñ la rek ci doomu aadama mu mën a amal njariñ askanam mu mën a amal njariñ goxam ak fu mu mënti doon rek mooy muy toog di am ay feem ak i xalaat ak i sañ-sañ mm-hmm. ak i mën-mën man si loolu laa jàpp ni loolu mooy mooy lu ñuy wax politique mm-hmm. politique nag dafa yaatu mën naa am ci politiku développement politiku nu koy ko waxee social mm-hmm. politique économique loo jël rek am na politique boo xam ni ay xalaat la ay nit ñoom ñoo koy doxal Maolana Cheikh Ibrahim Niass nga xam ni Euh, dëgg-dëgg. Mm-hmm. mooy ki nga xam ne moom mooy solution wu àdduna. la nga xam ni moom waxoon na aw jënd ni xaqan li jabil kasri donc kooku noonu moom dafa ñëw pour jang damm-damm yi suñu nee jàng damm-damm yi nag taalibe bu nekk ak ku nekk rek foo toogee rek noo ko xalaatee nu mu la xaal bu mu la ñëwee rek ah am na problème boo am bàyyi ñëw na andil la solution. solution yooyu nag lan la hmm. dafa am solution graduelle amna solution bu baye njëkk andi moy solution spirituelle moy nit ki ak borom boroomam nit ki si bopam moy le développement personnel damay faral di wax ne Maulana Cheikh Ibrahim su ne jamono ji man ah. sama genre dañ naan coach lañ coaching dañ ko dem jangi am si certif dem def certifié wu Eh, waaye soo koy def fekk ni yow coach bi gën a mag coaché na la ba pare coaché na la ba pare ndaxte di parce que dafay dem ba nga xam ni yow yow soo demee ba xam yaay kan xam sa bopp daanaka lu bëri eh, andi an bàyyi na la solution kon borom solution boobu nga xam ni tey régleel nañu ko ci sunu bopp suñu diggante ak yàlla nga xam ni tey euh, ñun ñëpp dañoo war a euh, ay su yàlla defee ay jullit ñu mën a respecter lépp li nga xam ni lislaam euh, tegal tegal nañu ko waaye waruñu yem foofu dañu war a benn am benn évolution spirituelle di dox mais loolu moom mu taxaw ci ba nga xam ni ñëpp nangul nañ ko jarma yeeg katakole yeeg wàngara aw awsaa yeeg ñëpp ñëpp ñëpp ci foofu sax. américain yeeg. boo xoolee ci foofu. waaw da ngay gis ni. xeet xeet yi nga xam ne lim nga ko. Mhm. xeet yooyu daaw ñu laale. daaw ñu laale. waaw daaw ñu laale comme daaw ñu laale nag ma andil la politique foofu. merci beaucoup. <laughs> allah akbar subhanallah mooy bàyyi. Uh-huh. su demee ba nga xam ni dafa bëgg dajale nit ñi. ndaxte képp koo xam ni tey. xam nga jël nga li nga war a jël. Mm-hmm. naan nga si kaas yi. waaw. Mhm. war nga xam ni man maa yow yaay man te bàyyi doon wax ni moom ni muy xoolee jaam bi munu ko munu ko bañ kon bàyyi def politique de brassage culturel fu mu dem rek mhm. fexe na ba jël doomam am boole ko do wax nga ko sànq aw sa yeeg duñ doon ñu laalante waaye ñoo xam ni dem ngeen ba xam ni finalement ñun suñu demee ba dem benn finalement sax amatul benn amatul ñaar kenn la kon foofu da ngeen di déggante da ngeen di bëggante ngir yàlla donc Baye dafa def politique boobu noonu politique d'intégration ah. moo tax soo waxee politique dafay yaatu politique d'intégration la politique d'intégration la def waaye ci biir politique d'intégration ja Baye nekk ci nekk ci jamono boo xam ne jamono bu difficile la woon mm-hmm. muy Sénégal ak ci àdduna bi waaye soo nee Maulana Cheikh Ibrahim rek ñu ne politique nag nga ku dem ku xalaat ku xalaatam dem ci su ñu ne question bi nga ma laaj politique bi lan la politique politique politicienne. wala politique de nguur. ma ne la kaa ñu jël politique nguur. bàyyi ñan la doon toogal. Mm-hmm. Gamal Abdel Nasser. waaw amee Nkrumah ñi nga xam Mao tse ba nga xam ni Kwame Nkrumah nee na ko yow xanaa yow yow yow yow moom yàlla nga mu ne ko. dama dama jubóog sama borom. kese jaam bu jubóog jaam bu jubóog borom la. Ah, <laughs> donc ban relation la amoon ak ñoom est-ce que ci maarifa fa woon mais si stratégie la woon. amuñu lu doon def duñu toog déglu ko wax ak ñoom moom. bi ñu nee dañuy taxawal tam maqaam Ibrahima. waaw foofu tam politique la. politique la si parce que mooy engagement. Mhm. ak détermination gëm li nga xam ne yow yaay xam-xam. nga ma ñëw mën na leen lii sonu ko teggee di euh, baaxut ci si suñu àdduna ngeen bàyyi ko fi maqaama Ibrahima <laughs> kon foofu mi ngi dox politique yamul ci loolu mm-hmm. Cheikh Ibrahim moo doon ki nga xam ni day baagante ci jumaa néeg beeg jumaa ja nga gis nga gis mu lëndëm lëndëm nga gis torche bi di baagante nga xam ni kii Cheikh Ibrahim moom mooy dem mm-hmm. waaye yamul ci loolu de mm-hmm. mi def liggéey bu am solo ci wàllum économie ay jamono tey ñi ngi wax agriculture ñëpp di wax agriculture mhm. waaye Mawlana Cheikh Ibrahima moo njëkk taxawal coopérative loolu loolu loolu xam naa euh, dinañ ci ñëw ci ci ci ci partie économique. économie moo tax ba politique. politique bi politique bi laa lay wax ba léegi. politique bi bi nga waxee dafa yaatu. maa ngi ci ba léegi. Ah, dafa yaatu maa ngi lépp politique. génn génn xoolal génn guma ci politique bi. génn guma ci politique bu Mawlana Cheikh Ibrahima. Mhm. Mhm. donc. nga gis ni kon Mawlana Cheikh Ibrahim lépp mu ne loo leen gis ma bay ko bay leen ko. waaw ba ci ceeb bi ba ci lépp. moo tax tey ñi ngi gis euh, euh, comment dire euh, xalif bi. waaw waaw. ah xaadimul umma. Mhm. moom taxawal toolu baay. waaw toolu baay que xam na mhm. li baay bind li baay bàyyi fii. xam ne ñun dañ ko war a yeggali. Mhm. nga dem tey ci wàllum toujours politique bi nga xamni bi. Nations Unies. waaw. Mhm. Nations Unies Allah. la. Mhm. ay état yu bolo ay état yu bolo yu bolo kon ay yu akbar. <laughs> Cheikh Ibrahim. Uh-huh. Nations Unies. bi. Mhm. village planétaire la. moo ko njëkk wax moo ko njëkk wax man kon visionnaire bu mel ni Maolana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu kon gis nga ni taxawaay am na taxawaayu lépp lépp lépp lépp daf ci taxaw ci si lépp laa wax dafa matee lépp mhm. Mhm. Mhm. donc politique boobu noonu tey muy def ay déplacement nga xam ni tey moom moo njëkk nekk koo xam ni kenn falu ko mu nekk président de la république. su demee ñu tarit ñu tarit lalal ko tapis rouge. bàyyi rek moo bàyyi rek moo ko fi def. bàyyi rek lañ fi lalal tapis rouge. muy déplacement boo xam déplacement boo xam du officiel. waaw parce que pays yàlla bi la. waaw. ki nga xam ni moom moo moom moo moom mooy représentant bi. Mhm. bu mag bi sallallahu alayhi wa xamni xam ni wax na ko isa saara xayru naas waraahu mom su yonente bi yalla doxé mu dox su taxawé mu taxaw yonente sallallahu alayhi wa c'était un un grand stratège ba ci politique kon molana Cheikh Ibrahim foog mu nek ko xamni c'est un grand politicien waye politiku njariñ la politiku njariñ mhm. deug le bàyyi molana Cheikh Ibrahim don def mhm. donc man so ma laajee kon polit faydu faydu ak politique man non la ko teunké

da nga war a xam lan mooy sa mission ci àdduna bi te mission ci àdduna génnul ci politique te tënk wax naa la ko ci domaine bu nekk politique bi dëgg dëgg dëgg loolu la rek du du du du leneen macha allah euh, Cheikh Moubarak dañu dañu laal benn point c'est que tur bi dafa tuuti mhm. mais lim lim lim lim mën a laal moo bari mhm. parce que amul looy def te raxul politique mhm.

parce que a une façon de gérer la cité da ngay une may andil gestion de femmes qui nit. waaw kon kon xaajale nga. dëgg c'est-à-dire man pour man politique c'est la façon de contribuer. ci cité parce que on est géré, waaw gérer du ne gérer. pas la mais contribuer ñëpp peut oh. <laughs> gérer non gérer ñep du pas gérer ñep ci oh. ñep la politique c'est la façon de contribuer ou bien la manière de contribuer anam bi nga xam yow da ngay da ngay def sa wall ci comme HLM ñu bokku ko mhm. ñun da ngay gis ni ñun ay jamono suñu suñu wajuri yalla leen ñi nga xam nañ gis ñu gérer HLM nga gis mu HLM bu bu rafet. bu rafet bu taaru. pourtant ñooñu suñu waajur est-ce que maire lañ won non non nek ñu woon maire. non ils ont contribué. mo bi tabax xolal suñu koñ HLM. Ah. da ngay gis euh, garab yi fa nek yëpp. Mm, mm. man garab sama garab ba ma saxaloon man bama nekke xalé ñu sama papa jox man ne garab bi yow ya koy saxal yow yaa ko saxal ko ya koy arroser mm. ma nga fa ba léegi parce que chaque jour dañ doon yeewu mm-hmm. am responsable ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy garab bobu boobu sama suñuy waajur yi nekkuñu woon élu élu local des élus locaux mais dañoo dëkk ci gox bi gëm ni ñoom ñooy doxal gox bi loolu mooy politique sëñ bi voilà. vraiment déggin bi daf ma daf ma frappé sax. parce mm. man maa ngi doon comme li nga ko waxee xalaat naa leneen ak leneen. Mm. mais da nga wax contribuer rek mu mel ni daf ma tëbbu xaal. Mm. te dëgg la. ñun dañu war a contribuer cité du question dañuy jox nit ñi ñu gérer mais nit ñi dañu war a contribuer pour mu dox parce que contribuer ñëpp xaj nañ ci xale bu ndaw bi xaj na ci borom cent franc bi borom mille franc bi borom lii dégg déggin boobu yàlla na ko yàlla defal gaa yi nga xamante ne ñoo ci nekk mën dégg yegg ci déggin boobu noonu waaye sëriñ bi dama bëgg ñu dugg ci benn phase mm. boo xamante ne daf ma ñor trop mm. muy faydu économie mm-hmm. parce que man dama gis ni bo ñun faydu on a toutes les solutions mm-hmm. pour mën a doxal économie mm-hmm. waaye ñun dañ ci am nan nga mën a amee solution pare am retard mhm. loolu bëgg naa nga ñëw ci waaye bëgg naa tamit nga jox nit ñi euh, les axes yi nga xam ne xëy na buñ ci taxawee xëy na yàlla dina mën a yéwanal affaire yi waaw xam nga euh, économie mën nañ ko tuddee lu ñu tuddee koom waaw loo xam ni moom mooy tax nit ñi mën di di di di demalante di jënd di jaay di dund nest pas di gagner ah di dëkk bi di évoluer di naat yàlla may ñu ñu am pétrole. waaw gaz. Euh, am nañ ay suuf. am nañ lépp. yàlla may nañu lépp. waaw lépp lépp lépp lépp. suuf su nangu. suuf euh, soosu du ay euh, mala. Mm-hmm. ñoo ñoo defaral ñu ko. déedéet waaye tamit ay nit ñoo koy ñëw defal waaye nit yooyu tamit du ay nit ju jóge ci biti ñooy ñëw defal ñu ko ñun suñu su ñun suñu bopp suñu biir ñoo war a mën a defar suñu réew réew moomu nag wala sax mën a jëm ni àdduna bi wala ma jël parce que foog ma jël àdduna bi pour mën a andi impactu faydu tijaaniya liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim ci politique économique du Sénégal foog ma génn lu tax may génn waaw ndaxte Mawlana Cheikh Ibrahim euh, xam nga euh, Cheikh Ahmad Tijaan yi dafa waxoon ni faydu dina ñëw te ti faydu na dina ñëw si sumay si samay sama saxaaba sama sama góor nit ñi dinañ dugg ci tarixa bi afwaajan afwaajan façon bu bëree bëri dinañ dugg ci bëree bëri bëri tey bi ñu posé question boobu noonu dañuy laaj ñun ki nga xam ne moom moo ñëw ne nii tey képp ku bëgg jaayanteeg Cheikh Ahmed Tidiane ñëwal nga jaayanteeg man kon kooku tey ñi ngi koy konteel man damay faral di wax. chiffre boobu yàgg na nag ba mu si mais dama bëgg téye toujours chiffre boobu mooy trois cent millions. il a mu de ma ni dépassé dañ ko bu mais su ma 300 millions de talibé de personnes non non damay wax ni pas moom dire kenn du 300 millions de talibé te lim lay wax depuis plus de 5 ans 300 millions de talibé suñ lay de personnes dans le monde ah ay disciples de Maulana Cheikh Ibrahim Nesrani ñoo xam ni tey xamuñu fuy Sénégal. xamuñu ko comme ñun ni ñu jàppee ni ñun Maolana Cheikh Ibrahim boobu nag damay jox sànni ni ñu jàppee ni ñun Maolana Cheikh Ibrahim kaw kaw Kaolack la moom moo ñu ko wax Ibrahima al Kaolack yi moom moo ñu wax Kaolack la boobu niñ ko gëmee ni Sénégalais la gëm ni gëm ko dëgg am na ay millions de personnes yoo xam mustu xamuñu Sénégal xam nañ Cheikh Ibrahim non niñ koy dundee ñun ba gëm ni Baye mi ngi fii ñoom ñoom nañu gëmee ni baay mi ngi foofu dëgg te muy dëgg nag te muy dëgg kon kooku su amee ay millions de personnes àdduna lu koy doxal moy le capital humain moy mm-hmm. nit ñi nit les ressources humaines Tay bañ nañ ko tubaab yi bi ñu bëggoon naxee mooy nañu wàññi mais Chine xam na ni population limu mu gën économie bi di gën a dox dëkk bi di gën a dox muy circuler waaye yow nga am ñun ñu am plus de 300 millions de, de disciples dans le monde. mais waxuma la économie kese mais secteur bu nek bu ñu laal rek dañ fa war a ñun des des contributeurs dañ fa war a ñun des valeurs. non au top dañu wara nek ay ay ay valeurs ajoutées. yo xamni dañu wara war a nak léegi nag jariñ boobu nag moy mooy mooy permettre aujourd'hui lu ñu soxla si développement. ñu mën ko ñu mën ko dëkku mën ci développer wu mën ci dem donc c'est ce la lay andi. la solidarité échange. échange. parce que tay su jappé euh, man mi damay te suñu ko nit ñi qui dërëm dina ci génn day démat ci ci gafa gi ci impôt yi. Mm-hmm. mi ngi économie mais fekkee gis naa fu mu ko mën a jaayee foo xam ni tey nit ñi dañuy ñëw jënd ko lu bëree bëri bëri bëri. kon maa ngi maa ngi déjà maa ngi entreprendre mais maa ngi dox bokk si nga xam ñoom ñooy doxal réew mi kon ñun suñu biir dañoo war a nekk benn lu ñuy wax euh, market place benn place boo xam ne marché la. marché la sunu biir parce que hmm. au-delà d'être ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima ay citoyen lañ. Hmm. citoyen bi. du du tey course bay ne bay bàyyi des fay da fay dund da fam ay besoin day dox day def day day bëgg des day bëgg lek day bëgg day bëgg transport etc. donc ñun war nañ nous xam ni kon am nañ vivier ci biir sur ces 300 millions wax Sénégal uh-huh. sur ces 300 millions la de talibé dans le monde uh-huh. imaginez lek imaginer rek 300 millions nga ne kenn ku nekk

ñu nasoo ci seen biir pas-pas boobu noonu ñu xam ni lii seen pas-pas la ñu nasoo ci biir loolu nag dem uti ci leneen li li ñu li nga xam ni manqué nañ ko ñoom. amaana ci gàttal ñun taalibe Maolana Cheikh Ibrahima ñun ñëpp lu ñu lu ñu nasoo mooy laa ilaaha illallah moo tax doo doo étonné wu àdduna bi trois cent millions de ñëpp dégg déggante dégg dégg benn daaj bi Mhm. parce que ci benn buntu bi la. benn buum bi lañ jàpp. benn buum la léegi <laughs> nag comme dañoo dégg daaj boobu noonu. kon li ñu war. Mhm. comme xam nañ ni nasoo nañ ci ci Maulana Cheikh Ibrahima. dañoo dem waroo dem uti ji li des. li des mooy bàyyi dafa ne gis na ay taalibeem nekk buuri suuf. ñu doog war réfléchir kon buuri suuf boobu mooy lan. mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy ñooy doxal. ñooy si. ñun ñooy jiite. ñooy jiite mm-hmm. li ñuy jiite nag lan la ah te te dellu si tam wax naa la ko sox benn si benn émission mm-hmm. mooy bàyyi non seulement dafa wax buuri suuf mm-hmm. waaye dafa ne xil ya saxbam fu dala yàlla na ko may mbooloo boo gis ña ci gën. ña ci waaye mu ñaan mbooloo ya gën ba pare na nii samay taal bi nekk buuri suuf. kon ñun dañoo war a toog réfléchir ne kon. lan moo manqué lan moo manqué ña ci gën yooyu lan la. domaine bo dem. nak domaine bo dem secteur bo laal rek ña ci gën. xooloon ñu ci xooloon ñu ci biir bàyyi na ci si ciix jël. léegi li dess nak moy ñu xol naka lañuy connecter cette cette connexion ce mécanisme ce réseau. bi nga xamni day permettre ñooñu ñuy mën di di jokkalante. di di demalante. ci domaine bu nekk nag laa wax domaine bu nekk laa la wax. Mm-hmm. réseau boobu noonu war a mën a évoluer. waaw te en réalité gis nga évoluer réseau boobu évoluer xam nga kan lay jariñ du jariñ taalibe baay bi de. àdduna bi lay lay jëriñ. parce que Mawlana Cheikh Ibrahim euh, dañuy fàttali rek ba ñu ba mu nee nañ ko wool ki dàq jàng. waaw ci maat bi ci jaar daayra bi. <laughs> ñu ne ko ah ki dàq jàng de du daara mu ne leen man leen wax ni ku dàq jàng.

wala sax man bi ma bëggee man tudd sama doom. Mhm. ku tudd da nga soxla bâche. defar yu rafet. ah <laughs> ah man dama dem ci koo xam ni bëgg bàyyi képp lañ koy wax. merci. ñu yore seen entreprise. waaw mu defar ko. ma ne leen ah ñoo loolu ci xam. ñu ñëw defal ma prix ma ne defal na ma ne ma xaaral ma defal ko prix prix taalibe nag. mais loolu loolu mooy connexion bi. merci loolu mooy connexion bi donc loolu ci Baye networking dafa am pilier. waaw yi. Mhm. The am pilier comment dire euh, jeunesse. Sur surtout ça. jeunesse. bayne avenir um un mi ci ndaw ñi. du ndaw mu kon ndaw mu ne nak xam-xam moy xam-xam. ñun intéressé ci formation de capacité. Mm. ba taxawal def nañ fi bi forum international des jeunes de la Fed ñu ngi waajalaat deuxième édition. édition dina amaat dina amaat dajalewaat jeune faydu bi. Mhm. mais lan lañ doon waxtaan ci technologie. Ah. ci économie ci entrepreneuriat. ñu taxawal leneen loo nga xam ni moom mooy euh, comment dire euh, Rahma fan. volet social. gis nga jam euh, depuis deux ans. korit tam suñu wooree ci koor gi. Mhm. muurum koor. Mhm. Rahma fan day dajale ñi nit ñi seen muurum koor. séddale ko joxe ko ñi nga xam ñoom ñoo ko gën a soxla loolu ça fait deux ans ñi ngi def initiative initiative boobu ren dafa doublé ku yore ju war a joxe murum koor rek muy France États-Unis fépp ñu ne la jaar ko ci Rahma Fane moom ay assistance sociale ñoo xam ni tey misim que si mel ne Seyda Dibor ñu ngi koy remercier ah, ak ak ak euh, ak Seyda Ndeye Ramatoulaye Wade ah, ah. Euh, ñoom ñooy assistance sociale yi nga xam ni nit su amee problème ñoom ñoo koy dem gëstu ba pare nga mu pare moom leneen lii problème dëgg la ñu ñu doora di intervenir ñu ne nañ taxawal euh, li nga xam ni moom mooy euh, Buy Invest ak le réseau des entrepreneurs de la fayda boobu lan la mooy dajale entrepreneurs yi nga xam ni dañu nekk ci faydu di liggéey su nekk parce que àdduna bi lan la entrepreneuriat patronat dafa am ñooñ dañu war a di jàppalante les entreprises man la may la nga la nga yore wala nga manqué ma mën la ci jàppale. et bi ci mujj depuis deux ans. Mhm. avant élection yi di di di ñu ne dialogue. <laughs> ñun créer dialogue bu yàgg. mooy créer les leaders politiques de la fayda. Euh, dajale ci ne wax leen ne leen dañoo mhm. taalibe bàyyi yëpp yi def politique. ñi bokk APR ñi bokk foo mënti bokk. Mhm. ñu ne leen ñëw leen ñu bokk ci réseau. boo xam ni kenn mooy sunu parti politique. muy Maolana Cheikh Ibrahim Niass. bañ ko defee alhamdulilah euh, leader politique yu bëri ñëw adhéré. waaw c'est tamit di si remercier ñi nga xam ni dañ ci taxaw depuis mi ngi mel na Baye Mbaye alkawla nga xam ne ñu bëri moom dugal na leen. mi tey ñoom Souleymane Ndiaye. macha allah nga xam ni ñoom jamono jooju ñoom ñoo nekkoon ci pouvoir bi. si si ah. Mm-hmm. bi saa yi problème amee rek. Mm-hmm. ñoom seen biir ñu ngi waxtaan. macha ak ñu bëri ñu kanam ñu ngi nekk ci biir groupe bi soo gisee ma lim ñaar ñooñu parce que dañoo tegoon jamono joo boo xam ne ñaari parti ñoo fi nekkoon au pour ñu ñii ñaar ñaar ñoo gënoon polarisé di mais quand même on a réussir l'entente entre les talibé Baye ba ci ma wax ko ci fii ba ci élection yi bi mu jotee hmm. ñi soxla parrainage

yu bëri renforcement de capacité am na partenariat bu ñu signé. ak génération Salih. Ah, ñoom sëñ Fallou ñu ngi koy nuyu. bo xamni un talibé un métier la. macha talibé bo xamni da nga talibé dañ koy jàngal. suñu paré jox ko métier. Nous mu am partenariat avec 3FPT ñu ne ko ensemble mais nous ko ñi ngi xaar ba l'occasion de de lancer message 3FPT bi pour nous, ñu ñu gawal affaire mais def nañ formation déjà entrepreneuriat ak <laughs> Kaolack ci lañ toll Nous def nañ entrepreneuriat ak Kaolack ñun by networking nous bëgg def ñi programme boobu ñu war lan entrepreneuriat mais ñu suñu formation Nous dañu def pâtisserie informatique ni horticulture bu ñu ñun formation entrepreneuriat hmm. financement naka financement financement mën na jóge ñun ci fond hmm. pour que suñu mbokk am euh, progression ba nga xam suba suñu nous ku a donc le dry networking loolu léegi la cest à c'est du réseautage. macha allah ku nek la nga la nga manqué sa morom am nako. ko. actuellement ñi ngi ñi ngi nek ci ben liguey bu am solo di l'occasion de nuyu le coordinateur Alioune Badara. macha allah ak ki nga xam actuellement mom lañu denk actuellement la coordination. Mhm. ci programme bi nga xam moy mooy mu tudd Adama. Mhm. Adama Diouf c'est Adama Diouf. pour ñu mën accompagner daayira yi. macha allah ci lan ñu créer ay ay GIE waaw surtout. et c'est l'occasion de dire que jour euh, inauguration bi. Euh, kii bi. Euh, fo tante bi. waaw incha allah. dinañ def benn session d'accompagnement. boo xam nit ñi nga xam ne bëgg formaliser seen entreprise. Mhm. ñi nga xam ne ñoo bëgg def entreprise mais xamuñu nu ñu koy defee. ak ñi nga xam ne ñoo bëgg même inscrire. Mhm ci programme yi nga xam ne état bi teg na ko ah. lu ci mel ne ADP moom par exemple ah. am plateforme boo xam ne tey ku am entreprise bi yore ay nina yaa war nga fa mën a inscrire ñooñu ñëpp incha allah euh, au niveau de de Kaolack équipe Pay dina ñëw su ñëwee ku fa nekk ku ñëw rek dañ la conseiller fekkee dafa laaj ñu war la naka lay créer les GIE dañ la woon statut wu yëpp nu ñu koy defee pour que ñun après ñu jàppale encore une fois GIE GIE nga xam ne chaîne la ñu mm-hmm. ngi koy tëjee maintenant mm-hmm. mooy am na GIE boo xam ne mi ngi mi ngi Kaolack macha allah kooku li ko gën a jege mooy peut-être tool ba. waaw comme ni ñuy faral di wax la tool ba ba ca bool ba. Mm-hmm. mu dem moom GIE concentré wu ci agriculture bi. Mm-hmm. ci bay bi. Mm-hmm. suñu bayee ba pare foog ñu. Nous récoltons. ñu ñu ñu ñu peut-être les cas transformation. surtout oh. mais si nous transformons, il wala que transporté. il faut ñu spécialisé transport Il faut utilité bu Si nous Il la ba nous suñu Il faut que nous ñu jënd. mais ku réseau donc. Mawlana Cheikh te li ma fi wax nii génn créé wu fi lenn lu dul dem lërmba génn ji li Mawlana Cheikh Ibrahim tracé kase amul amul nouveauté non non mais parce que mais dafa bokk ci ci développement wu euh, développement wu faydu ci tijaaniya loolu daf ci dafa am un central central bu ci nekk bu ci nekk te loolu te loolu mooy lépp sax par exemple tey euh, jamono ji euh, balaa ngay euh, comment dire nga concentré wu sax. ci ci ci ci ci wér di beeg ñoom seen. mais da ngay da ngay <laughs> da ngay am. il faut que sa bopp bi normal sa bopp bi xaw a ah, chaque jour. dafa am benn wax bu may fàttali. gars yi dañ wax ne nañ tabax jumaa yi tabax jumaa yi benn waaye jóg ne nañ tabax poste de santé yi nañ ko baril. Mhm. gars yi ne ko ah boobu mu ne parce que nit ñi bu ñu amul wér gu yaram. duñ mën a dem ci jumaa ji. loolu mooy mooy li nga wax. voilà donc donc by networking. Mhm. c' est c' est juste loolu rek moo ko taxaw jox jóg. te wax dëgg yàlla depuis biñ ko taxawalee. Mhm. bañ ci amee ndigal. ah euh, ci euh, Pape Pape Cheikh d' abord yàlla na ko ah, yàlla yërëm. macha allah amiin Cheikh Mouhamadul Amine Ibrahima Niass. papa papa Maay. ak mhm. euh, ñoom Cheikh Siraji. waaw ñëpp daal ñi nga xam ne tey ñi ngi fi di di di jàppale ñi ngi si ñi ngi wéy. macha te nag wax dëgg yàlla. Euh, euh, ñu ngi siy def loo xam ne ñun mm-hmm. am na nit ñi ñi ngi si réseauté mm-hmm. ah di ci jàppalante mm-hmm. donc te dem nañ tam ci muqadam yu bëri depuis gars yu bëri xam nañ ko donc li des nag mooy ñu xam ñun lan lañu yore waaw taalibe Mawlana Cheikh dañoo yore bàyyi daf ñu tracé lépp bindal defal nañu cest tey amul lenn loo xam ne tey taalibe Baye am na ci war na ci mën a am am problème parce que Baye wan nañu yoon bi macha allah xam la moo des rek maintenant ñu jël appliquer li nga xam ni naam la ñuy jëriñ li ñu jëriñoo nag mooy damay faral te loolu un message la mhm. bu may jox mbokku taalibe yëpp mooy ñun ñëpp ay Baay Ñas lañ allahu akbar ñun mhm. waaye lan lañ ci Baay Ñas ban damit lañ ci Baay Ñas waaw nag kenn kenn du doon bàyyi nag <laughs> waaye kenn ku nekk kenn ku nekk. am nga am nga tamit nga. waaw cër nga. Mhm. cër boobu lan la lan nga doon. loxo nga wala tànk. non waxuma xoolal lan nga ci. lan nga ci dafa dafa yaatu sax. ay molécule lu nekk mi ngi ci. c'est-à-dire mhm. yow lan nga ci yow. est-ce que yow yow yow soo demee ba xam lan nga ci Maulana Cheikh Ibrahim yow taxawul ci bunt boobu rek bunt boobu. nga liggéey ci nga liggéey ci ci buntu boobu noonu. am na mhm. ñoo xam ni yàlla lim leen may. moom mooy jàngal Quran. Mm-hmm. nga xam ni bàyyi karaamam alxuraan la. yow yow saxal ci jàng alxuraan boobu. am na koo xam ni li ko yàlla may ci Maulana Cheikh mm-hmm. mooy defar nit ñi. nga defar. surtout. na koo xam ni Maulana Cheikh lu ko may mooy alal. waaw na liggéey ci Maulana na jël alalam liggéey ko ci Maulana am na koo xam ne lu ko yàlla may taar. Mm-hmm. taaram boobu na ci liggéey ci Maulana Cheikh na ci jëriñ maam mooy maanaam. lépp lu muy def rek ku si ku ko gis rek. waaw na na na na xelam dellu ci yàlla. dellu ci Maolana Cheikh mhm, dellu ci Maolana Cheikh dellu ci Maolana Cheikh am na koo xam ne da ko yàlla may mooy xam-xamam. xam-xam bu mu doon nag yow jëlal nga jëriñ ci Maolana Cheikh ci pays bi. am na koo xam ne daal am temps. waaw. <laughs> temps la am. na temps na jël temps wam. def ko ci Maolana Cheikh am na ko xam doole. mooy di yëkkati. Mhm. dem di def li gi nga suñu boole yooyu yëpp. amul xëccoo synergie bu grave la si wuy ma amul xëcc du sax am xëccoo parce que kenn ku nekk di nga xam yow lan nga ci biir macha allah te c'est ça qui est la force li nga xam ni muy alxuraan di ko wax toujours ñu koy rappeler tout le temps te nga xam ni tamit mooy credo même ansaaru diin ak lépp li nga xam ni Maolana Cheikh loola def moom mooy waxtasimu bi qablillahi jamian wala tafarraqu tigi léegi ñun suñu buum bi ñuy war a jàpp mooy nañ jàpp ci buumu Maolana Cheikh Ibrahim tigi bu ñu tàqali ko

mais jokkootoo mais jàpp jokkootuma. Uh-huh. mais nag suñu jàppee ni ñun ñëpp. bum bi warul dagg. waaw te waruñu tàqali ko. dañuy téye bum bi nag xool nag naka lañ koy organiser bum bi. ba nga xam ne lu dëgër la. lu sampu la te mbirum bàyyi lu dëgg la lu sampu la. Uh-huh. kon dañoo war a góorgóorlu. Uh-huh. liggéey ko. ba nga xam ni. dootuñu toog ne ñun état lan la ñuy lan la ñu war a defal. surtout ñun ñooy état. ñun ñooy état. Mm-hmm. ñun waruñu soxla dara ci kenn. loolu waruñu laaj dara kenn. lu ma métti la mi waruñu laaj kenn dara. waaye tamit aussi waruñu waruñu euh, xool keneen lu mu am. waaw surtout ça. waruñu xool lu lu lu état defal keneen. dëgg parce que keneen kooku. Mm-hmm. dafa am lu mu def. Mm-hmm. ah mhm. jël ko def lu ko war ci moom respecté moom li mu bëgg bëggal ko boppam imposel ko boppam état ñëw fekk si ko macha allah kon ku ñu wax ñun ñun ku ñu wax joxoñ tooñ nañ ko billaahi wa taala wax di état suñ ko waxee mhm. suñ ko waxee mhm. suñu waxee état tooñ nañ ko su ma nee tooñ nañ ko nag mooy maanaam ñun de lan la ñu def est-ce que def nañ li ñu war a def li ñu war a def pour ñu mën li ñu war a def ci biti waaw loo xam def nañ ko ci biti moo tax bi ma tàmbalee rek ma génn man ma damay génn toujours Sénégal <laughs> Sénégal ñu international rek nañ international macha allah c'est-à-dire li ñu gén li ñu def ci biti mm. ba nga xam ni tey euh, état yëpp nangul nañ ñu ay président tey tey ay président ñooy dugg nànk Sénégal waaw dem Medina Baye ay ministre mm. ñooy dugg nànk jël seen jet jet privé dem Medina Baye dëgg la mm-hmm. Mm-hmm. kon ñun am nañ ay ay buur mm-hmm. yuy ñëw Medina Baye kon am nañ lépp léegi nag comme comme lu ñuy wax lu la jege yiir la. waaw. Mm-hmm. kon ñun dañuy war a nangu rek. accep cest acceptation. si ni mbir mi su ñun la. c'est macha mbir mi su suñuy division la. mbir mi si ñu man ma jàpp ni man la du yow. waaw surtout mbir mi lan la. yow yaa war a def keneen ki warul def. maa ko mën a doxal. mbir mi lan la ah diw de waru ko doxal. waaw mais maa ko war a doxal. man la wala mbir ah diw de ah limi def de mhm. fa duñ ko duñ ko si gis nga mhm. wax bi la suñu rek mhm. gis ni defal nañu à la place qui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut l'homme qu'il faut nit ci place ba war ba war gis nga suñ ko defee uh-huh. ñu nangoo parce que man damay am parfois man benn problème boo xam daf may jiixi jaaxal ñun taalibe Baay mën nañ delloo lépp ci benn di delloo di delloo delloo delloo delloo ba raafal lépp nag ne benn d'accord nga ci dëgg bu wér ah, mm-hmm. waaye suñu suñu suñu defee farxu waaw ba nekkaat ci naasu tiya mm-hmm. maanaam on problème pour gérer wa pour pour pour pour pour pour gëm ni benn la. lu compliqué non non en fait man pour man. ça fait il faut que ñu ñu baal ma ci ci ci ci terme mais il faut que ñu régler côté bobu il faut que ñu régler côté bobu ñu gëm ni man man la ngay def. c'est ça la ngay def yow man nga koy defal. allahu akbar man ma gis ni Barhamiennes TV mi ngi liggéey. waaw ma jël sama alal def ci. def ko ci. te bokkuma Barhamiennes TV. wala sa xam ma jël sama xam-xam def ko ci Barhamiennes TV. surtout gis nga suñ ko defee Sénégal taalibe ay perle lañ ay jamaa lañ. am na si ñoom dañuy nelaw. Mhm. ñuy nelaw lañ nañ leen yee. nañ leen yee saa su ma nee nelaw mooy ay ay ay Ferrari lañ ay ay ay jamaa lañ. yu dawaguñu ah. <laughs> ñu roodeen ñooñu. ku nekk ñu bàyyi la fa nga ne. Mhm. la nga mën ñu dooleel la ci. kon yaakaar naa ni ñun ñooy solution wu àdduna bi. macha allah parce que boobaa. du jeng. dëgg la dañuy def nii parce que ñun gisuñu xaaj ak seen. macha allah xam na lañu gis. doomu aadama. macha allah dafa neex nag. Mhm. nga bokk ci benn kër. xam ne kii man ak moom ñoo bokk. nga gis ko nga ngeen bëggante ngir yàlla. ak am solo ak am solo. te nag gis nga. la may gisee sama taal mbokku taalibe Baay bu nekk Nigéria wala Hong Kong wala feneen mu nekk dëkk boobu te ni muy dundee euh, euh, comment dire faydu xaw na uteeg man est-ce que damay xulo est-ce dama koy gaaj dam koy dam koy dal damay naan kii sama mbokk la dam koy damay nangu man ne sama mbokk la kon nañ nañ nañ suñu biir tam fii Sénégal nañu nañu nangulante am na solo nañu nangulante man Moubarak Wade su ma defee naka su dul noonu yow war nga mën a ñëw ndànk sama kër nga nga laayante mhm. ma laayante ma biir te yaakaar naa ne ku ñu laayante biir uh-huh. damay dama am benn kilifa bu mag benn jour mu am benn affaire ma woo ko mhm. ma ne ko ah sëñ bi man de dama la buggoon wax si sama xalaat ci tel mbir su doon sama sago mhm. dama la koy wax nag ci buntu ku la bëgg. kase nag ma ne ko su doon sama daw nga defee nii. maa ngi ciy jégalu nag li ma la kàddu bi la wax mënuma ni li ma wax nag noonu la. parce que dañu war a waxante. fekkee lu baax la nga jël sa téléphone. wax ne nit ki ah kii de li mu def nii li mu wax lu baax la. ñu laayante biir ñu laayante biir donc loolu dafa am solo. té lool moy motivé mhm. moy tax nit ki nga xam ni muy def lu baax mi ngi koy def mu gën ci sawar li nga xam dafay am na ko xamni yow japp nga ni ni muy defé du nonu nga layanté biir té kaashiful albas ñu na rek lay li bari suñu problème yu bari kon kon kon nañu nañu bëggante nañu japp ni c'est-à-dire armée am ben armée la ben armée la wala ben mën wax ni ben ben état la état ba ñu wax état bi. Hmm. benn benn cest benn nit moo fa nekk boo xam ne moo nekk ca bopp ba. na ñëpp nekk ay soldat na ñëpp nekk ay soldat <laughs> te nag sax soldaa sax ñëpp ma ñu nekk soldat dina am ñu ñu ñu hmm. ñu kiiwante am na ñoom ay généraux lañ ñii am ay colonel lañ hmm. ku nekk am mooy li ma wax ban ban ban kii nga bokk yow yow lan nga ci Mawlana Cheikh Ibrahima suñu xamee loolu rek en réalité ñu xam ne nag kon ñun nag dañu war a organiser wu doon benn jour bu ñu doonee benn ce jour là problème yi nga daan gis yëpp ci mm-hmm. pays bi nit ñi di ko jooy mu nekk seen dënn yi dafay jeex day jeex donc problème bi mm-hmm. nekkul ci biti de uh-huh. mais si ñun si ñun macha allah mubarak mm-hmm. vraiment bugguma la woon sax dagg parce que lancé bi nga nekkoon yaa ngi woon ci di di di résumer suma question yi waaw di répondre si ma question yi di répondre sama question yi ba maa ngi naan sax alhamdulilah parce que booy waxtaan nag euh, ku conférencier mën naa la tuddee sax conférencier. da nga koy da nga koy bay. da nga koy mm-hmm. bàyyi. Mm-hmm. mu mu mu mu déroulé. tout à fait ndax euh, émission bi boo xoolee contexte bi sax loolu la. Mm-hmm. maanaam entretien exclusif la. waaye tamit. dafay xaw a nduru conférencier <laughs> moo tax euh, bi nga tàmbalee rek dama la bàyyi nga développé parce que xam naa ne yaa ngi ci xaal boo xam ne mm. bu ma la dagee sax amaana li ma bëgg ci yow du ma ko am dugg nga ci Baye Networking mm. wax nga lu am solo mm. man Baye Networking daf ma neex maa ko bëggal sama bopp ndax li ci nekk ci njariñ mm-hmm. néew na nga fekk ko feneen mm-hmm. waaye tamit modèle la boo xamante ne tey jii bu ko ñu bari xamee mm-hmm. mën nañ ko copier ndax euh, dafa am diine dafa am fole diine boo xam ne daf koy feeñal mooy lan mooy solidarité parce que ku wax diine wax solidarité te boo duggee Buy Networking loolu nga fay fekk solidarité mhm. solidarité économique boo doy waar di fa fekk monteur di nga fa fekk jaaykatu gerte di nga fa fekk maçon bi di fa fekk plombier di nga fa fekk électricien di fa fekk comme li nga wax événementiel kii def événementiel wax maçon même carreleur taal carreleur taal bi bàyyi dajale mi ngi noonu dajale nañ leen mi noonu am nañ seen domaine bu nekk. ñi ngi ñi ngi leen di ñi ngi leen di dajale. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax nekk benn. moo tax tout le temps dama koy bëgg di joxe en exemple. Mm-hmm. comme quoi que ne bépp mbokk taalibe bi boo xam ne. yaa ngi ci dara di ci yëngatu. boo jegee bàyyi networking yow di nga gis am changement ci yow. parce que di nga gis ni euh, yaa ngi liggéey. mais yaa ngi liggéey ak plaisir. parce que ñi ngi koy defal yow la. comme ñu ngi ko waxee sànq. ñun ñëpp benn lan donc tey ji man su ma demee di mu barak day mel ne man sama bopp laay liggéeyal mu barak suy liggéeyal ba euh, Omar day mel ni boppam lay liggéeyal dëgg dëgg dëgg apporter nga solution bi nga xamante ne bu ci gars yi jàppee dina régler lu bari ndax dëgg la critiquer neex na waaye apporter solution moo ko dàq te tey buñ la toppee dëgg dëgg dëgg indil nga ñu fi ay bunt yoo xam ne buñ ko toppee ala kulli xaalin problème yu baari ci faydu bi danañ ko régler émission bi mi ngi mi ngi mi ngi tiiree ah ci comme li ko Omar di faral di waxee en sa <laughs> fin léegi xam naa ne dañuy bàyyi rek nga jox ñu kàddu gu mujj gi ñu mën a tàkkali ko après. alhamdulilah euh, kàddu bu mujj euh, bi may wax rek mooy. am na événement yu bëri ñoo xam ñi ngi ko fay def. waaw te te ñun euh, maa ngi nuyu sànq Cheikh Bachir Ndaw gis nii dañuy organiser chaque année. consultation médicale. gis naa gratuite

donc ñi ngi ciy dem ñi ngi tamit ñaanal ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi def initiative mm-hmm. di joxe ay lekk waaw surtout ñi nekk di nettoyer ak lu mu mënti dem rek buntu yëpp buntu liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima na ci ci gàmmu bi mm-hmm. ñi ngi ñaan yàlla ñëpp am am moyen amiin ngi ñaanal euh, Barhamiennes TV dañ ko gëm masha Allah ñun dañu gëm ni <laughs> Barhamiennes TV tele bu mag la bu mag la te ñi ngi gis évolution bi. macha allah te lu lu lu lu yokkul rek daa wàññeek wàññeeku waaye ñi ngi gis seen i bëggeel ñi ngi gis seen engagement moo tax. ñu ngi leen di ñaanal ñi ngi gis seen émission yëpp am te wër na pays bi nañ ñu jàppalante ak yéen. incha allah te loolu Baye networking. Mhm. mi ngi ci. incha allah ñi di di di travail ak yéen pour ñu gën a ñoŋal. waaw liggéey bi. macha allah euh, matériel yi gën a yokku. Mhm. donc loolu dafa am solo.

mu def ñu dëgg-dëgg ay taalibe Mawlana Cheikh ibrahim yàlla nañ nek ño xamni ne dëgg-dëgg nag li di baye doon wax fidyanu sidqin ñu nek ñun ay ay ay fidyanu sidqin waaye ñu nek ay ay ay ay mak yu yu dëggu yu wër yu wër ci molana Cheikh ibrahim su te soo dëggoo rek baye xam ñu dëgg dëgg la dëgg la bu ñu def sans demi mesure dëgg la bu ñu bëggantu mhm. bu ñu defantu mhm. donc man daal loolu laa amoon di ñaanal xalif bi gudd fan ak wér liggéeyam bi mu def mhm. gis nañ ko li mu mujj def ci ci ci tournée ci ay Cameroun ak feneen ak feneen ba ci Soudan ba ci jiitu woon euh, mi ngi def liggéey bu am solo ci àdduna bi macha allah te c'est l'occasion encore une fois aussi état du Sénégal xam lolu waaw xam ne am soutien de taille. deugul amna soutien bu am doole. bo xam ne tey. soo wéeroo ci mom rek. di nga dem ah di nga dem fu sori. voilà donc mo tax daal ñun ñun nañu wéro ci Mawlana Cheikh Ibrahim. macha xam ni vraiment moy sunu moy sunu lépp. mom lañu bëgg. ah mom lu muy waxe fofu ak lii wa sharabi wa dini wa dinaani ñun. ñun bay moy sunu lek moy sunu nan moy sunu lépp. wa akhir dawana alhamdullilah assalamu alaykum wa khala Cheikh mubarak Ah, ñu ngi am contentement bu baax parce que man nee naa plateau yi tout le temps da ngay recevoir ay invité mais invité bi rek ak particularité am euh, Moubarak dafa nem particularité boo xamante ne waxam lu ci ëpp luy jariñ ci côté économie la parce que loolu boo ci amee retard da ngay soxla ñu mel nii di leen invité di jël ci ñoom xam-xam di jël ci ñoom ay solution di jël ci ñoom ay buntu yoo xam ne buñ ko exploité di nga gis ni Euh, coono yi ñu daan jànkonteel ci yenn mbir yi lu ci bëri dina réglé moo tax euh, tout le temps dama koy am envie di ko jox muy wax parce que dañu wax ne am na ñoo xam ne bu ñu waxul rek musiba am moom dafa bokk ci ñi nga xam ne faydu daf ko soxla dafa bokk ci ñi nga xamante ne euh, diine bi sax daf ko soxla parce que lim yor du pour faydu bi kese mais ku nekk rek mën na ci jariñu xattaa sax boo nekkul ci diine sax mën nga ci jariñu ndax pôle de développement dafa am loo xam ne moom moo koy firndeel moom nag ci loolu la nekk di ci dox ba pare di ci dimbalanteeg ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi parce que ndaw ñi ñoom ñooy yor ëllëg responsabilité yi donc soo préparé ndaw ñi ñu mën a ko ay responsabilité ñu mën a nekk ay nit ñoo xam ne ay entrepreneur la ñuy doon ay nit ñoo xam ne ay boromi métier la ñuy doon yow xamal ni yaa ngi jëmbat loo xamante ne ëllëg dafay jariñ te loolu rek moo am solo nit ki dundam lu mu yàgg yàgg yàgg lan lañ koy laaj ndax bàyyi na fi luy jariñ te yow amul sikk ne ñaanal ma la ko waaye bu fa yemoon tamit am nga loo bàyyi luy jariñ yal na yàlla guddal sa fan yàlla yokk sa mënal yokk sa tëbb yal na yàlla yokk sa dëgëral sa jokk ci ki nga xamante ne mooy suma soppee muy Cheikh Bassir nga xam ne suma xarit la heure bu ma ko wooyee téléphone uh-huh. dañuy déggante mu may laaj ne ma ñoom Mubarak la may laaj wala ñoom Chérif xam na suñu diggante uh-huh. jàmm ji ci am waaye xam na suñu diggante coloré bi nga xamante ne am na ko ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di la wax ne Barham Yéene TV sa chaîne la heure boo bëggee ñëw. xam nga tu es le bienvenu. incha allah rabbi ñu ngi ñaanal suñu PDG bi nga xamante ne moom it ah. ñëpp dañ koy ñaanal léegi nit ñëpp dañ may woo téléphone naan ma Omar vraiment ñu ngi koy félicité. Mm. te loolu ku ñàkk ki ñaan moo koy def. Mm, mm. tey rek am na benn confrère boo xamante ne macha allah daf ma woo téléphone rafetlu liggéey bi nga xamante ne waa Barxam Yent bi ñu ngi koy rafet ñu ngi koy liggéey euh, rafetlu Omar initiative yi nga xam ne mi ngi koy def changement bi nga xam ne vision bi nga xamante ne nit ñi doon nañ ko am waaye buñ buñ indi nii nit ñi dañ ko rafetlu vraiment ci montage yi ci image yi waaye ci émission yi ci contenu yi vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla moom yàlla may ko télévision ndax bu amee télévision faydu moom moo ci jëriñu di gërëm mbokk te téléspectateurs yi nga xam ne ñoo safo chaîne bi di leen wax rek ne incha allah rabbi ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen émission bi nga xam ne mooy entretien exclusif incha allah rabbi jërë ngeen jëf mbokk yi seen xarit seen soppee bëgg bàyyi képp ci am le grand présentateur wasalaami ala dari in imamen donalol miska walkiba wasaaa